par rapport ak coow dette fiscale xam naa fa la ñuy jeexale wàllu presse beeg euh, dégg nañ coow jub si mel ni ma Madiambal Maimouna nduur jug nañ yëkkati seen seen loxo Madiambal na moom munu ko ko sax fay lan moo leen dugal ñoom si si si guute gu ni mel. guto gi li leen mel mooy bañoonoo fay xam nga boo toogee fayoo hmm. dette fiscale bi moom boo toogee fayoo gars yi tegal la kayit ba ndax kayit yi yomb naa stocké ci ordinateur. xam nga ordinateur stocké yomb na. bu ñuy dikkee rek dañ naan monsieur X dóor tàppe léppam génn donc xam nga kooku yo jafewul gannaaw ñoom daawuñu fay dikk ba fii ñu génn kayit bi ne leen tàngeen fi kee fay leen. dafay metti ma jambal defe naa quatre-vingt-onze milliards la am. Mhm. ñu ne ko fayal mu ne mënu koo fay. mënu ko fay mais man dégg naa bërki demee ma jàmbal def ay appartement xaw ma coopérative xaw ma. Mhm, di ko may ay employés. ay journalistes ay journalistes ak yooyu. Mm, mais loolu ku ko mën a ku am pexey def yooyu vraiment war ngaa am pexey mën a fay immeuble bii ñu ne moo ko moom ak immobile li mu am ci ay biens immobiliers. Mhm. bu ci jaayee benn mën a fay quatre-vingt-onze million mhm. normalement du dara ci ma jàmbal. waaw bu ko defee ñu debal koy compte mu continuer kii. mais nag atte bor ak fay bor bi réew mi lañ ko yorool budget nationale bi lañ ko yoreel donc nañ ko fay ku ci mënta fay nag nga dem ci fisc bi ñu defal la moratoire moratoire mooy lan somme bi maanaam boo amee un million ñu ne la weer wu ne joxeel cent mille cent waaw weer wu ne joxeel cent mille nga signé nag échéance yi te respecté ko loolu ñu bari dañ ko def te defe naa loolu impôt et domaine euh, xaw ma impôt du ko bañ mm-hmm. ndax ma jambal nee na woon saa bu buñ ko nee taral bu amoon problème. nee na mosuñ yi fa ñëw. waaw waaw gars yi buñ fa ñëwut it xam nañ li war a fay. xam nañ ko xam nañ li mu waaw gars yi gars yi gannaaw mosuñu fa ñëw envoyé la ne la fayal nangam. mais demal fekk leen négocier. daana ko def buñ ko mësaa jàpp nee na euh, Waly Bodian la daa téléphoné Waly Bodian ñoom teggi seen tànk ndax nee na déjà mi ngi koy politiser ndax nee na Euh, les les les inspecteurs Pastef ñoo ko daa jàpp. loolu wax de. loolu la daa wax. mais inspecteur Pastef yi ka Baliba Dia moom Pastef la bokkoon mais ñi ci des di dem ci terrain bi di ko jàpp mu ne Pastef la déjà moom mi ngi politiser yëf yi. di gën a aggraver am kaam. Mm. xam kii comment il s'appelle. Mm. may a Ndour. déedéet waxuma may a Maïmouna Maïmouna xam nga li tax bëgguma cee wax. Mhm. xam duma ma ci wax. c'est waaw. Mhm. mais boo jëlee kii waa ji ni mu tudd. Mamadou Ibra Kane euh, euh, déedéet. Mhm. Mamadou Ibra ban mooy seen président. kooku du ma ci wax ki may wax mooy kii ma ma jàmbal ni mu meloon ak waa Pastef mel ne ku yor parti politique di leen combattre ouvertement dem ci sëriñ bi ne Sonko intégriste la. Mm. lu ne fu ne mu dugg salafiste la. poseur de bombe la ak ñi mu àndal nangam ak nangam musiba lañ ci réew mi combat boobu boo ko defee noonu ba nga xam ne bi ña la doon protéger daanu na ña nga doon xeex nga jàkkaarloor war nga xam ne les données ont changé. Mm-hmm. moi je lui dis une chose. Mm il faut qu'il évite de prêter la flanc gannaaw dafa bëgg xeex ak gars yi politiquement na jaar ci yoon wi. mais loolu est di xeex ak nguur. am na presque dans tous les pays question mooy posé da am na dans tous les pays du monde nag mhm. ñu koy def mhm. boo demee France Le Figaro xam nañ fi ñu fare mhm. les autres journaux xam na li ñu fare amoon na journal bu ma xamoon à Paris waa ji ko def da koo def biñ ne Giscard ne candidat la rek mu jënd presse ba di ci bombardé Giscard bis ba Giscard daanaw la arrêté arrêté journal ba mhm. ndax nee na dafa defoon ay taxi mhm. taxi la defoon à Paris les taxi de Paris jusqu'à mhm. ministre des finance dóor ko ci amende boo xam ne bii donc moom mu doon fayu dégg nga laal donc am na presse mel noonu mais boo ko amee it il faut assumer il faut assumer ah oui parce que am na loo xam ne boo ko defee war ngaa xam li lay ci fekk boo nekkee une presse d'opposition yow ñi ngay invité ku ne xam na leen li ma xam ci presse dafa bari. taxawaay bi pour tëj. non boo bëggee daal da ngay adopter une certaine attitude de neutralité neutre à cent pour cent kenn mënu ko ndax nit kiy bind sax am na fu mu far. te wolof nee na boo waxee feeñ. waaye wax ba ne fàng yi boo ko defee la nga war lool ak fisc jox def def ko loolu moo la ciy musal. jërëjëf ngërëm ñeel na la mu doonoon laaj bu mujj bi nga xam ne mu daal bëggoon laaj. su amee kàddu nga xam ne bu nga ko yëkkati si ndaw ñi wala gouvernement bu bees bi lan lay doon. gouvernement bu bees bi daal li ma leen di wax muy sonk surtout am na planning bu mu defoon naan day def Burkina day dem Burkina. day dem Mali ak feneen ak mm-hmm. nangam. Mm-hmm. bu ma amee lu ma koy digal. Mm-hmm. Sonko ci boppam. na toog biir Sénégal. ndax Sénégal problème yi fi nekk. ak ni ma déggee ni ni lay liggéeyee. koo xam ne kii da ngaa bëgg liggéey dix huit heures par jour. Mhm. metti na trop. trop metti na trop. Mhm. waaw deuxièmement nga bëgg di voyager à travers l' Afrique. Mhm. avec toutes les contraintes. et les risques que ça suppose man dama ko naan na toog Sénégal bëpp ndi bi wuri Sénégal yee ko gën a soxla partenaire am yi mu àndal ñoo ko gën a soxla na fi toog liggéey ba yeneen jamono moom ci boppam mu mën a tukki bu dee tukki au niveau international président de la république mën na koo def mais nag du ko def au niveau de Pastef ndax il est président d'honneur de Pastef c'est le président du Sénégal il fait ses voyages mm. au nom du Sénégal mën naa voyager mm. mais Sonko daal li ma koy diggal mu toog ci biir réew mi mm-hmm. problème yi fi ne mu jéem ko régler deuxièmement it am na lu ma koy digal mm-hmm. mook Diomaye mm-hmm. ak un petit staff politique bu bokk Pastef ñoom ñëpp nañuy fexe chaque quinze jours wala chaque semaine ñu toog autour d'un petit déjeuner ou d'un petit repas ou d'un café ou d'un thé échanger waxtaan ci réew mi waxtaan ci réew mi waxtaan ci seen bopp ni ñuy nekkee mhm. parce que réeroo yu bari ñàkk waxtaanu koy def man am na problème bu ma amoon dégg ko ci mbedd mi les problèmes de taxis yi taxi yi ci ah, des nu mu tudd mhm. am na taxi yu kii euh, mooy euh, mooy vango xawma lu tudd yango yi mhm. taximaan yi am nañ problème ak yangu yi man dama jugg ab taxi bi ma ko expliqué ak mu ne ma am na benn ancien ministre boo xam ne bii. Mhm. lim jënd ci yangu kenn xamut nu mu toll. muy Mansour fay Mansour Faye waaw dafa jënd yango yu dul jeex. Mansour Faye waaw Mansour fay defu ko peinture buy feeñ peinture bu nëbbu la ko def bu gris. taximaan moo ko waaw taximaan bi ay Suzuki. ne ma kooku problème la nangam ak nangam ma bëggoon a gis kenn ci ñoom pour wax ko mais ñoom koo ci téléphone doo ko jot amoo fooy defee ay reclamation ci lu mel noonu te certaines information dafa war a remonter ba àgg ci Sonko. Mhm. wala le ministre de tutelle ñu jéem a seet nan lañ ciy def. jërëjëf waaw te loolu mënoo koo def. Mhm. donc daal li ma leen di kii nañuy wubbi seeni bureau di waxtaan ak sénégalais yi. di waxtaan ñoom ci seen biir. disponibilité. waaw une certaine disponibilité. Mmh. les empêchera pas de fair correctement leur travail. kon book loolu amoon lu may wax. Mm-hmm. maa ngi lay sant. Mm-hmm. ak staff. Mm-hmm. maa ngi sant Sénégal yi ma doon déglu yépp di balu ak ñi nga xam ne. maanaam xañ na wax ji am na loo ci kii deuxièmement it sama bokki baykat yi ñi ngi leen di jox gerte gi di nga bay non du ma bay même bu ma nekkoon ci àll ba it aju <laughs> bay duutuma ko def mm. mais nag li ma leen di wax daal gerte gi ñi ngi leen koy jox mm. nit ñi naan gerte xott lañ leen jox duñu am temps wu xolli ko mais xolli gerte en dix jours mm. mën ngaa xolli loo xam ne lii doy na la pour bay donc nañ gaawtu xolli gerte gi gannaaw faru nañ ba noppi xolli gerte gi tànn ko defar seeni saaku teg ndax Sénégal nawet bi mën naa. gannaaw tabaski mën naa am nawet bi mën naa taw. Mhm. ndax fii mu ne bientôt ñu dugg premier ceebo bi ma bi ñuy wax càng. Mhm. ñu dugg ci. Mhm. donc nawet bi jot na te ñu teel a ji. te ñu ba li gën a bon mooy bañum nawet. bu tawee rek bu xawee tooy nañ jiite xaar yàlla. waaw jox lépp suñu borom. waaw jox lépp suñu borom. waaye naan tooy naag tooyut ku ko mas a dem ci nawet rek. ñàkk nga te nawet bi nag nañu ci juddulee liir yu bari xam nga juddulee liir yu bari ci nawet mooy lan euh. <laughs> bay sëb bay mboq bay gerte bay lii bay lii bay lii lu ne rek nañ ca bay mhm. la ñu am buñ bàyyi dara waaw buñ bàyyi dara te xaar nag suñ borom jërëjëf jërëjëf nañ bàyyi lépp xaar suñu borom di mhm. nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk côté diwaanu Saloum ak Jolof Kajoor ñu ni mel mhm. waaye di sant également ki nga xam ne moo nekkoon si régie di di tuuti di ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal set ak ñu baaxoo di ñuy déglu nekk bitim réew nek si biir réew mi jërë ngeen jëf Matar Cissé Lo mu nekkoon si kàddu gi